asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu dalee nag jàmm si seen première numéro bu seen émission actu réew mi ngeen ko tàmmee di ko amee saa su nekk ñu war waxtaanee actualité euh, ci euh, bépp fànn euh, li ko dalee ci lépp loo xamante ni daal information la nañ ko indi fii saa su nekk di ko waxtaanee seen émission actu réew mi tey na nekk seen premier numéro de la semaine ñu andi ay sujets yu am solo yoo xamante ni war nañ ko waxtaanee bokk na ci li nga xamante ni moom mooy gestion Covid 19 ci àdduna si sépp rawatina ak ay yoo xamante xamante mi ngi nekk euh, phase li nga xamante mooy phase test yu war découvrir war ko euh, toftal nga xamante ni moom mooy vaccin yi waaye tamit dinañ wax ci euh, beneen wàll li nga xamante ni moom moo ñeel lii di ay ndaw yoo xamante ni dañ leen jàpp fi nga xamante ni moom mooy ci yoonu Espagne bi dinañ wax tamit ci génn àdduna ki nga xamante ni moom mooy mu nekkoon médiateur de la République bu Sénégal waaye tamit ci sport bu Sénégal rawatina lajj yi nga xamante ni suñu gaynde yu bi su koy lajj nañ ko jamono ji nga xamante ni ñuy wax tamit suñu ay gaynde yu nekk ci basket bi ñu ngi jëm ci quart de yi ñu waxtaanee nag gestion wu euh, sport bu Sénégal waaye nag euh, saa su nekk rek laataa ñu euh, dugg rek ci waxtaan boobu damay bàyyi sama chroniqueur ki nga xamante ni li ñuy wax le papa jantal wala wala jantal Mara mu di nuyoo monsieur Fall ñu nuyu baax a baax. Ah, ñu ngi lay fay Mor di nuyu nag bépp internaute ak téléspecta ak téléspectateur ak téléspectatrices yi. Mm-hmm. di dellu rek di wax li nga xamee ne rek moom mooy ni ñu ko baaxoo di ko def. bon bokk na ci actualité bi nga xamee ne tey jilee comme ni nga ko waxee rek dégg nga dinañ wax ci yaakaar bi nga xamee ne am nañ ko ci euh, médicaments yi war a ñëw dégg nga ci fekk ñu am Sénégal yëpp am na xarak tiis ak ni nga xamee ne rek noonu la ñuy gérer football bi ak sénégalais yi bu ñuy dem ci compétition dégg nga tey jii dinañ leen wax li nga xamee ne rek mooy tax a chaque fois suñ demee ba ci cappaandaw ba rek ñu daal di lajj dafa nekk lu tuuti tuuti tuuti loo xamee ne mooy tax rek bu ñu demee bay nekk demi final wala ñuy dem ba war a jóge quart de dem demi final lu tuuti tuuti wala ñuy finaalu ñu lajj final bi tey jii dinañ leen ko wax ci réew mi actu voilà loolu lépp nañ ko waxtaanee ci réew mi actu kon ni ñu koy defee saa su rek waaye dañuy tàmbalee ak li gën a fës ci réew mi euh, quotidien à la une euh, coronavirus les médicaments euh, bientôt disponibles les pharmacies compteront bientôt sur leur étagère des boîtes de comprimés anti-Covid après les vaccins ces comprimés vont compléter dans les prochaines semaines l'arsenal de lutte contre le Covid-19 et toujours blessés reposent à Touba. À Marseille, un Sénégalais tué en, en plein match. Euh, toujours dans Rémi Quotidien, Parti Sport, euh, Beach Soccer, les Lions euh, terminent à la quatrième place. PSG, une bombe à 215 millions d'euros lâché euh, pour Mbappé euh, Watford Ismaïla Sarr parti euh, pour rester loolu moo nekk nag li nga xamante ni moom moo gën a fës ci réew mi quotidien laata ñoo ñëw ci waxtaan bi rek comme ni nga defee rek dañuy commenter suñu ay titres yi nga xamante ni moom moo nekk ci réew mi quotidien donc père la une de réew mi quotidien coronavirus les médicaments bientôt disponibles ñu def benn commentaire daal di koy maasala rek duggaale ci sujet bi nga xamante ni moom moo ñeel wàllu gestion coronavirus bi ci biir réew mi ak àdduna sépp dëgg la Mor balaa may euh, euh, amorcer suma propos rek. Mm-hmm. damay wax askan bi ñuy déglu. Mm-hmm. ne leen dem leen ngeen vacciné wu ji. Mm-hmm. dégg nga daal di respecter mesure barrières yi. di wax rek ni euh, médicament yi ñu indi tey jii. dafa nekk un plus boo xamee ne rek pour aar askan bi. ndaxte gis nga lii yëpp ngay gis ñëpp. dafa nekk ci li nga xamee ne. ñu ngi koy wax toujours di wax que ne yàlla moo ñu teg mbugal bii mbugal bim ñu teg nii dégg nga ñun pexe yi nga xamee ne moom la ñuy war a euh, fexe pour daal di mun a moytu génn ci mbugal mi moo di rek que ni ñu daal di euh, médicament yi nga xamee ne yaakaar la ne mu ngi ñëw ak euh, li nga xamee ne moo di vaccination bi moo tax ci sama propos avant propos ma daal di ne dem leen ngeen ñàkku ji te respecter mesures barrières yi moytu mbooloo yi toujours bu ñu demee ba nga xamee ne loolu fës na ba pare yii bu ñu ñëwee dina am efficacité mais na la amee efficacité ci feebar boo xamante ni à chaque fois bu ñu nee trouvé nañ vaccin wala euh, trouvé nañ vaccin am na donte mais à chaque fois ñu ne am na mutation donc feebar boo xamante ni mënoo ko maîtriser à à chaque fois y a des est-ce que le fait que ñu ñu nit ñi dem leen vacciner wu prenez les les mesures barrières prenez ceci prenez ça ñu jékki-jékki waxaat ne bientôt des médicaments est-ce que euh, l'affaire c'est juste war a naan day jël ay mesures barrières wala ko war a jàppee comme ni ñu koy waxee euh, mbir suñu borom la saa bu waree dem dem. mbiru suñu borom la kooku amatuñu ci eh, lam-lame wala sikki sàkk mm-hmm. wax naa la ne laata eh, mbir mi di si fii ci delta 2 ki 3 ki 4 gis nga Sëriñ Muntaxa mm-hmm. dégg nga ba mu wootee ca xasaay ja mm-hmm. mu nekk loo xamee ne bu fekkoon ne daf ko def ñu ñu yem ci ñun sénégalais rek dañu naan xëy na ñii ay fanatique lañu ak yeeg yooyu waaye boo xoolee ci réseaux sociaux yi da ngay dégg ne la reine d'Angleterre dafa woo ay imam mm-hmm. pour que ñu taxaw ci London Bridge dégg nga daal di def ay haut-parleur pour que foo nekk ci Londres nga mun a dégg euh, appel bi nga xamee ne askan bi ñu ngi koy euh, euh, woote di woo suñu borom di toroxlu pour que yàlla daal di raxas réew ma foofu mm-hmm. su demee ba nga xamee ni kii dañ ko taxé ne ko nasaraan la mu dem ba daal di jóg fekk suñu ci suñu diine dégg nga di ñuy jéem a euh, ndëppal réew moomule te Serigne Cheikh si euh, almaxtuum waxoon ko fi dégg nga euh, Serigne Muntaxa jaarale ko ci wàcc ay kaamil ak xasaay bi ñooñu laa de xam ne lii ñuy wax ni lii raam ci ñag bi la jëm ne ñu delluwaat suñu bopp ci yàlla benn ñaareel ba mooy delta 3 beeg mutation beeg yëpp mesure barrière yi takk masque bi raxas loxo yi delta barrière bi soo seetee ba seet mun a la tugg mun a la guggoo dara même ñakk yi sax bu ñëwee doole jam doon am dafay wàññeeku kon nag bu ñu demee ba gis loolu ñun ci su ñu daal di ne dafa am ay médicament pour traité loolu dafa nekk li nga xamee ne rek mooy pexe yi nga xamee ne moom la ñu war a def dégg nga bàyyiwaat li ci des ci suñu borom. Mm-hmm. parce que buñ ko bàyyee ci suñu borom dafa am comportement bu ñu war a am. dafa am éducation bu ñu war a am par rapport ak ñi nga xamee ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu wér-gu-yaram. ni nga xamee ne noonu la ñu war a daal di comporté woo pour rek euh, mbir mi daal di fi jóge ndànk-ndànk ndaxte affaire bi du bëreet génne ko fi du bëreet mu jóge fi dafa am nu fu muy jaar di dem ba médicament yi nga gis ne ñu ngi koy bugg a indi mu am ci benn boo xamee ne maa ngi ciy jàng ne am na benn boo xamee ne prévention la mm-hmm. am benn boo xamee ne dafay boo bu la dalee daf lay faj voilà donc di wax rek ne bu ñu demee ba nga xamee ne ñu ngi ci diggante boobu mm-hmm. yaakaar mun na am ci li nga xamee ne moom mooy nar a yokk suñu défense immunitaire yi nga xamee ne mooy tax ñu mën a résister. mais est-ce est-ce mu nekkee moo fi nekkoon di professeur Seydi ak ki nga xamante ni moom fi nekkoon di euh, Raoul ñun ñu waxoon ci bi ne il ñu utiliser ay médicaments ñu bañ ñu jekkaay jekk ne il faut sortir des médicaments te ces médicaments sax bu ñu xoolee à base am na am na yoo xamante ni euh, c'est à ni ñu koy waxee euh, am na yoo xam ne ni ñu koy waxee amoxy kii mi ngi ci biir mm-hmm. donc est-ce fi mu nekk ñi dañuy mayaat dañuy mayaat dëgg ñi nga xamante ne ñoom ñëwoon si mbas mi ne mbas mi nu ñu koo faj si juste ci ay ay mesures barrières rek ay vaccin mais il faut ñu boole ko traitement ay ay ay comprimés est-ce que nekkul lu ñu dëggal loolu mais euh, mesures barrières yi ba ñu koy wax mhm. waxuñu ko woon pour mu faj mhm. li nga xamee ne prévention la woon. Mhm. prévention bi ñu wax ne léegi sax mën ngaa jël virus bi à les yeux. kon est-ce que kon day naan li tax leen weer kon. nga takk lunette <laughs> prévention. bokkul ak faju prévention fagaru la faju mooy naan ay comprimé naan comprimé yooyu ñuy wax noonu ak ñooñu loolu ñu doon wax noonu dégg nga parce que bi mbas mi ñëwee kenn amu ci woon ay éléments yoo xamee ne d'argumentaire boo xamee ne bu plausible bu mënoon a taxaw mm-hmm. léegi nag ñu ngiy dem ba ci biir yàlla may ñu xel boo xamee ne ñu ne comme que affaire bi lëmbale nañu nañ dund ak moom. Mhm. ñu ngi dund ak moom mu ngi yóbbu li muy war a yóbbu yëpp. mu waaye rakkaaju gi mu rakkaaju terewul mesure barrière yaa ngi taxaw toujours prévention bi. Mhm. terewul aussi ci médicaments yi ñu ngi defar ay prévention yoo xamee ne dafay jël place su ñàkk yi. Mhm. Euh, am yoo xamee ne dafay euh, prévoir li nga xamee ne mooy mu dal la ñu faj la. loolu dafa bokk ci li nga xamee ne. ba ñun eh, doomu aadama ak askan bi encore une fois ma daal di attirer attention ci li nga xamee ne moo di mbiru yàlla bi mm-hmm. te mbiru yàlla bi dafa dem ba nga xamee ne benn nit boo xamee ne mooy reine d'Angleterre parce que reine d'Angleterre boobu boo xoolee ci li nga xamee ne mooy mm-hmm. arbre généalogique bi mooy fi nga xamee ne foofu la meññee ah. soqe ko dégg nga de koy remonté mbir ma dem a dem na dem na ba daal di ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maamam la mhm. mu dem ba nga xamee ne euh, booba ñu ngi jiyaat di ñëw foofu di kéeg dégg nga ci ay maamam ci ñooñu turk yooyu tuareg yeeg mhm. yooyu nga man ne tuareg yi sax ëpp na mais euh, yi nga xamee ne mooy araab yi doon ñëw dégg nga di ñëw saragos di ki yëg yooyu ci yooyu am na ci benn maamam boo xamee ne euh, ci euh, xeetu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam la bokk donc bu yëkkati ba xam li nga xamee ne moom mooy ah, euh, raxas nëppal Londres mm-hmm. xelam dem ci loolu xëy na mun na am dañ ko ko déy mm-hmm. kon nag yaakaar rek la ñuy am mm-hmm. yaakaar jooju ñu am noonu nag dañuy fexe ba nga xamee ne rek sénégalais yi di leen wax ne leen euh, da ngeen di euh, balaa ngeen di mun a faju balaa ngeen di mun a wér da ngeen di discipliner d'abord discipline bi moo di que ni li nga xamee ne ñi seen xam-xam màcc ci wàllu mbirum feebar bi liñ leen digtal fokk ngeen def ko munu leen toog dégg nga bu ni ngeen duggee ci oto yi ñi yore masque ñi yore wuñu masque da ngay jékki-jékki sax gis koo xamee ne day mel ni si ndax ci biir euh, oto yi dégg nga sans masque dégg nga ñenn ñu sakk ay masque ñenn ñu ci ay mm. masque ak yu mel noonu mais dafa nekk ni euh, sénégalais li rabam di bañ moo ñu ne ko defal lii mm. mais gis nga bés bu dee ñëwee nag mu daal di ne wóoyaa yooyu mm-hmm. dégg nga loolu nag ñun dañ ci tàyyi mm. ku bugg masque wu na nga wu ku buggula masque wu wala nga bugguloo ñàkk wu ñu bàyyi la Mm. ku bëggul ñàkk kon ba ni ñu koy waxee tere tere bàyyi mu gis. donc dañuy euh, gën a def ci loolu di ñaax sénégalais yi ñu continuer di def li nga xam ne mooy vaccin yi continuer di def mooy mesure barrière di di yaakaar ne euh, médicament ñëwee aussi bon mu andi euh, beneen solution ci li nga xamante ne mooy mbas kon nañ continuer def comme comme maam rek comme sama gars yi ni ñu ko defee ñoom Momo ak ñoom Malick Nguer Geek ñoom Sexaw ak ñu ni mel daal koy kii ngi mën a xeex li nga xamante ni moom mooy boobu coronavirus ñu beneen wàllu muy li nga xamante ni moom mooy sport bi Sénégal lajatina ñu amoon yaakaar euh, si biir siko bi Sénégal dóor ñaari champion du monde dóor Portugal dóor ki nga xamante ni moom mooy Brésil ñu amoon yaakaar ne Brésil ak Russie bi nga xamante ni ñoo desoon si équipe Sénégal bu ñuy dinañ di def benn boucher ñu ñëwaat lajj euh, ndax dañuy jàpp ne euh, excès de confiance moom mooy ñëwaat si Sénégalais wala boog Sénégal moom moom moom la moom la secteur sport am feebar. du du wax ne secteur sport Sénégal moo feebar. mais da nga wax lu am solo da nga ne ñaar ñi mën ci àdduna bi ki yore raaya bi ak ki nga xamee ne moom lañ yaakaar jël ko quatorze fois muy Brésil ñu duma ko mais encore naka lañ ko duma ba ñu koy duma ñu ngi yore les armes à la main waaye l'essentiel de la troupe l'essentiel de l'équipe dégg nga dafa décimé woon ñi nga xamee ne ñoo waroon a jouer demi-finale bi genn wàll gi yëpp ñii dañu gaañu ñii dañ leen suspendre mm. donc équipe bi nga xamee ne moo joué euh, demi-finale bi dafa nekk presque équipe B bi mm. mais góol bi bokk ci woon ak ñi nga xamee ne dañ leen suspendre woon ci ni nga xamee ne rek noonu la ñuy euh, baaxoo ci équipe bu Sénégal yi nekk en te haute compétition yi mm. li nga xamee ne Sénégal mënuñu ko gérer moo di la compétition dans la durée compétition dans la durée moo di que ni bu fekkee ne affaire bi une semaine la boo moytuwul euh, balaa ñuy def ñetti fan ñu jël coupe bi ñëw toog bu fekkee ne un mois la mënuñu gérer nit ñi xoolal ma jox la benn exemple ba ñuy dem 2000 euh, équipe bi ba mu demee ba quart de final ñoom dañu waxoon ne fi ñu nekk nii comme yegg si nañ fii rek baax na mm. donc. bu fi yemoon sax mu neex. <laughs> ñu dellu si ñu leen di jubileel di kii yu mel noonu benn yoon boobu mënoon na kii. Mm. ñu demaat ba nga xamee ni am nañu kaan euh, bi mujj. 2019 mm. dem nañu ba nga xamee ne nee nañu équipe bu Sénégal bi boo watul moo koy jël. ak ñaari défaite yi nga xamee ne premier en poule euh, kii dóor nañu euh, nu mu tuddati Algérie mm. ñuy dellu siwaat dégg li des ci compétition bi yëpp suñu cadre yi ñu ñi ñu daal di leen. Euh, écarter déedéet ñu daal di leen suspendre. joué wuñu final bi. donc équipe bi buy yegsi ci ay final dafay mel ni ñi nga xamee ni ñooy suñu yaakaar dañuy fexe bañ jox leen ay euh, carton dañuy fexe wala gaañu des trucs comme ça bu ñuy yegsi équipe bi da ngay dafay am. Euh, toujours déséquilibre ci li nga xamee ni mooy équipe type bi nga xamee ni moom mooy dal équipe yu mag yi comme France gis nga bu commencé da ngay gis doo gis euh, arrière centrale bi du du gaañu doo gis euh, ku ci am carton doo gis Mbappé dara du ko jot doo gis ki nga xamee ne mooy borom gauche bi Euh, xaw ma nu mu tuddati euh, moom it ke dara du ko jot. donc donc góol ba toujours mu nga fa toog. donc ça veut dire amul problème coaching mais problème de management de de l'équipe la am. de problème de management de l'équipe ak ni nga xamee ne noonu la ñu war a gérer le groupe les uns avec les autres. ba pare te saa yu ñu leen dóoree bu ñu ñëwee ba fii ñu leen di jubiler loolu lañu ñu war a bàyyi ñii nii ba ñuy yegg démb ba ñuy ba ñuy dem demi-finale xamoon nañ ne. xamoon nañ ne duñ fa jëlee dara xamoon nañ ko waaye keroog ba ñuy waxtaan wax naa la ne dóor Brésil tey Brésil la ñuy joué da koy de Sénégal da koy dóor mais ba mu koy dóor boobu fekk ne les armes à la la ko dóor dafa fekk ne capitaine ba tànk ba bokkatu ci kii nii am na carton mënatu fa dugg dégg nga daal di def ba nga xamee ne équipe bi dafa décimé le Sénégal a été battu sans ses kooku dafa nekk ci li nga xamee ne Euh, bu ñuy xool équipe bi nii du ñu xalaat pour jéem leen a jubileel parce que jéem a jubilé bi sax boo demee am na lu nekk ci suuf pour jéem a lekkaat tuuti xaalis waaye dañ leen di wax ne leen dégg dinañ leen coacher psychologiquement pour que ñu daal di mën a fexe di moytu yenn gaañu yi di moytu yenn carton yi nga xamee ne bu équipe bi di dem ca cappaandaw ba moom mooy wàññi dooleem. mais est-ce fu nekk nii ñu xoolaat euh, ni ñuy defee suñu gestion parce que man damay gis si yenn équipe mag yi euh, des premiers matchs bu ñu génnee seen ay leader football dañ leen dañ leen làq ñun nag bu ñu ñëwee topp dañuy jël suñu suñu les meilleurs rentre leen fekkee lay gars ce qu'ils vont chercher à faire c'est dañ naan soit. on va essayer de diminuer la force nga xam ne mooy équipe bi wala jëm a xool xam nañ ñi mënuñoo gérer seen colère sénégalais mënu gérer li nga xamante ni moom mooy euphorie bi donc yooyu yëpp suñu fédération bi nga dem euh, euh, quart de finale donc est nekk nii li ma ko a wax sànq sport Sénégal moo fee parce que à chaque fois ba nit ñi am yaakaar comme ni ñu ko waxee euh, bu eh, amul xaw bu fi yemoon sax mu neex ma neex na ba noppi waaye nañ ko fi eh, kaaroo kaar am na fi donc est-ce que fu nekk nii Sénégal dafa jël boppam rek eh, li ñu naan Sénégal est première africaine xaw ma daan mondial est-ce que loolu la nekk ci boppam jàpp ne ku kii war naa mun dóor ci terrain bi alors que am na yenn yoo xamante ne war nañ ko mën gérer psychologiquement ci biir ci biir ci biir terrain muy basket muy football muy bis soccer muy yeneen ak psychologiquement bi nga wax mooy li ñu manqué sur ñu moo lay yóbboo le premier janvier ba le 31 janvier tu baisses pas les ba pare dafa am benn adage boo xamee ne qui veut voyager loin menace sa monture boo saa yu génne compétition ñu daal di génne benn équipe type ñu daal équipe type ba def la mu war a def ñu daal di ne bon am na ay failles yu nekk ñuy jéem a corriger di kii yu mel noonu ba jékki-jékki mu am kenn ku ñu gaañ rek nga daal di gis koo xamee ne yoonam nekkul ci groupe bi daal di ñëw saaga arbitre bi ñu daal di ko carton loolu euh, mental psychologique préparation psychologique boobu ma Sénégal daf ko amul te xaw ma dama xamul lu tax ñu koy nangu ñun sénégalais yi di nangu nit ku ñuul di nangu bu demee ci biir tubaab yi ñu koy psychologie bu ñëwee fii ñu daal di ne noo yat ak carotte rek la ñu euh, xamatuñu sax carotte yat rek la ñuy xam loolu mooy problème bi il faut que ñu daal di euh, xam yar suñu bopp encore ati dégg nga te aussi euh, am na benn paawu tubaab bu ma doon wax ne ma dif paawu sénégalais mu ne ma xam nga mon fils ba ne ko woy mu ne ma gis nga tubaab ak euh, nit ku ñuul du benn mu ne ko ah bon mu ne ma woy mais mu ne ma seddul gis nga tubaab yi suñuy entraîné wu ci dara muy ci football muy ca daw ba mu ca kii gis nga buñ ne për noir bi raw ko dafa naan euh, du def benn effort day bàyyi noir bi raw rek millions yi daanu ca kaw noir ba ñu dellu siwaat beneen année ba dégg nga ñu daal di ne noo commencé na cheville ba moo xaw a jàdd koñ cuisse ba moo am problème élongation musculaire tubaab ba ne fes nekk fa nag pendant des années mu ne ñoom ci seen bopp ci seen psychologie dafay dañuy wax ne bu la noir bi di raw bàyyi ko mu raw la mais bu xasee ba def bu rawee benn yoon rek après deuxième fois bi pour mu rawaat la te seetlu nga ne noir bu raw rawaat <laughs> fa nga nekk tuuti américain pour mun a def loolu wala jamaïcain waaye ñun ñii africain ñii hmm. sénégalais yeeg yooyu dafa rawee benn yoon xoola jaba ba mu fi jëlee euh, médaille ba mënatul fexe ñoom ñëpp dëxin bëpp la ñuy lekk bu ñu leen doxee kii ñuy nekk ci ay dëxin bëpp wala di noos wala wala di wane wala di wane seen bopp dégg nga wala di bu ñuy dox di jàdd koñ ba mu gi ñu daal di ne waaw léegi nag feebar naa yàqu naa mënatuma dem loolu mooy loolu mooy li nga xam ne ne moo ci nekk pour revenir maintenant ci autorités yi seen comportement il faudrait que ñu daal di mun a euh, gérer sport bi ndaxte ñu ngi ciy def xaalis bu doy ñu ngi leen di mettre ci condition yu valable mais daf ci am nag benn côté boo xamee ne condition yooyu ñu leen di may am na ci yenn yoo xamee ne buñ ko defee dégg nga te gis nga genn wàllu euh, ñiy daw ñiy dawal Sénégal yépp dégg nga ñu ñoom ay bi euh, binationaux lañ donc euh, esprit civisme ba ñuy am ak reyante ba ñuy am ak ceeg yu mel noonu euh, ba ñu war a am ci ki nga xamee ne mooy euh, patriote bi dëkk fi day am toujours dysfonctionnement donc am na un travail psychologique ak d'assistance dégg nga ak mun sax li nga xamee ne mooy hymne national bi sax ñu mun ko yow mënuloo wax ñan ñoo mun a euh, euh chanter équipe nationale euh, national au Sénégal alors donc dafa am ay rigueur yoo xamee ni dégg nga boo boo ko kii gi nga France balaa ngay ci dañ lay jàngal nga mun a jàllàkk français ñu jàngal la nga mun euh, li nga xamee ne booy wut nationalité bi ñu jàngal la hymne national bi daal di ne la allons les enfants de la patrie rek daal di nga daal di ko mun mais fii doo xam ñoom boo leen ne le lion rouge à rouge yi ñu laa di ne la oui oui oui c'est Tarzan qui passe par là ou des trucs comme ça xam nga donc dafa am yenn yoo xamee ni euh, dañ ci war a jógaat dañu war a bàyyi euh, lion yi nii def nañu exploit déwén mun na am mu baxaat li ñu war a travailler bu ñëwee ñu ne leen oh c'est bien ak yooyu comme bañ jëlee Coupe d'Afrique bañ ñëwee. c'est président bi kii na leen. waaw euh, léegi bu ñëwee alors c'est bien ak yeeg yooyu seen prime yi ñu war a am ñu jox leen ko. ba pare dégg nga peuple bi xam ne foofu la ñu mën a yem te beneen yoon il faut que bu le buddee beneen yoon dina dinañu am motivation bi nga xamee ne moom la ñu koy li ñu def nag baax na waaye nag dafa jarul ay fête ak jubilé ay kii yu mel noonu institut ndaxte jubilé boo koy def da ngay nekk ci euh, euh, logique wu échec te logique gu échec boo ci nekkee ñu lay récompenser doo gaaw a émerge

Euh, ay quelques euh, informations yu ndaw rek li nga xamante ne moom moo ñeel euh, wàllu xale yi nga xam jàpp nañ leen si yoonu Espagne bi ñu doon dem si gaal gi ñu bëri daal di mujjee faatu ñeent rek ñoo ci mucc moom mooy fa nga xamante ni mooy building doon lakk barki démb donc ñaari information yi ba nga ko déggee naka la la naka la la def. <laughs> du information yu ndaw. Hmm. information yu ndaw la yoo xamee ne mun na exploser encore dëkk bi. Hmm. benn bi moo di que il wax nañ ko keroot ci suñu émission bi mujj di wax ni nga xamee ne mooy taxaw bi autorité yi war a taxawu ndaw yi ak ñi nga xamee ne ñooy compatriotes yi nga xamee ne dañu nekk à l'étranger ñuy wootu way euh, ay ndimbal di wax rek ni li ma ciy mun a wax mooy gis nga euh, lii di euh, jël xale yi di leen yóbbu ak xale yi di jugg ci géej gi di dem barsa u barsaq man damay wax ak njiitu réew mi ne ko lii nii mun du nekk sax patate chaude dafa nekk nii nii patate na ko jàpp comme patate chaude mais patate chaude la boo xamee ne bomba nekk ci biir bés bu explosé xëy na moom sax du ko fekk du ko fekkee ñun ñii itam duñu ko fekkee ndaxte suñu senegale yi dëgër bopp boobu ma doon wax noonu mooy li nga xamee ne moo ci nekk xam nañ ne dañ leen di rey xam nañ ne dëkk boobu amatul dara xam nañ ne Europe ñu ngi nekk ci ay confinement loo xamee ne doxul waaye ba tey jaral na leen ñu daal di jaay seeni or tegg ay tontine dégg nga daal di dugg ci gaal yi pour dem dégg nga loolu yëpp dégg nga li nga xamee ne moom moo doon politique boobu ma la doon wax naan politique bi nga xamee ne mooy fixer les jeunes sur le terroir mooy fixer les jeunes pour que ñu bañ a immigré ji daal di def des centres d'intérêt indi ay emploi formation professionnelle daldi di jóg taxaw ut ay volontaires yoo xamee ne dañuy dem ci jeunes yi pour mun leen a jox li nga xamee ne rek moo di espoir que li ñuy wax kii ne dem nañu ba léegi wax naa la ne euh, dañu gëmatul ful dañu gëmatul ñi nga xamee ne ñoo di euh, politique yi c'est le euh, flu total boo xamee ne moo moo nekk ci diggante Euh, ñi nga xamee ne ñoo ñuy gouverner ak ñi nga xamee ne ñoom ñooy gouverner yi gouvernant yi ndaxte boo demee ba ñi la jiital ñi nga jiital gëmatoo leen boobu pour que nga mun a am crédibilité comportement de confiance bi dafa commencer di rompre dégg nga tey gis nga fii lenn ci boppam mooy war nañu bàyyi dégg nga di taal ba mu takk rek ñu daal di bàyyi noonu dégg nga daal di jël nag li nga xamee ne rek moo di colma li ñuy wax colmatage mm-hmm. nga am toit buy senn mm-hmm. nga daal di jël benn kii tay ko ba pare daal di ne ça wax nañu on passe à autre chose. mais man problème bi moom mooy à chaque fois on dit que euh, ni ngi ñu ngi continuer dem euh, continuer dem Espagne man je me suis euh, def naa benn entretien ak gaal yi ñoom ñu ne li ñu wax ñu mooy moom mun nañoo yàpp gaal dem Espagne te état doo gis police du ko gis donc yow boo demee ba ga ba mool yi wax loolu ne ñoom euh, fi mu nekk nii euh, amatuñ dara lu ñu lu ñu ñuy ragal ci réew parce que dara amatu fi donc yow ban ban jàng am ci loolu ku dem ba ne ñoom bu mën nañoo yeb gaal dem Espagne te du ko gis. te ñu côté boobu ba léegi. Mhm. gars yi ñu ngi dem Espagne ñu ngi continué ñu bu ñu jàppee tey bu ñu jàppee dix deux rëcc na donc euh, ndax yow mu nekk nii amul benn moyen bu ñu war a mën tek ngir mën a arrêté. li mooy immigration clandestine bi que ñu naan ay euh, ñu informer nañ ndaw yi nañ sensibiliser ndaw yi est-ce que amul lu ñu mën ne pour inciter les à à à à loolu mooy li nga xamee ne rek mooy euh, moom laa la doon wax loolu dafa am contrat de confiance boo xamee ne dafa rompre entre les jeunes et les autorités gis nga dëkk boo gis réew moo gis état ba dafay tracer les conditions yi war a tax ba jeunes yi daal di mën a fixé wu état ba dafa war a teg ay contrat de confiance entre jeunes yi ak moom état ba ci boppam dafa war a teg li nga xamee ne moo di dispositif waxuma disposition de dispositif boo xamee ne soo xëyee daal di dugg ci euh, case des tout-petits nga dem ba dugg école primaire dugg ba li nga xamee ne moo di ci lycée yi nga dugg ba ci université dégg nga booy dem nag pour daal di mun a jaay xam-xam bi nga xamee ne moom lañ la tàggatee ci système euh, éducatif boobu nekk ca biir réew ma day am benn passerelle boo xamee ne foofu ngay jaar mooy formation professionnelle mooy nekk la cle de voûte pour que rek nga daal di mun a nag daal di repérer wu dans le monde du travail te pour que nga mun a nekk dans le monde du travail il faudrait que ñu daal di mën a teg ay législation yoo xamee ne pour protéger li nga xamee ne moo di entreprise yi ak ni nga xamee ne moo di travailleur bi ñu daal di teg ay euh, réforme yoo xamee ne ñu mën a permettre ñu daal di mën a nag euh, jox espoir jeunes yi ndax mënuloo toog dans un pays nga daal di gis ne am na des gens qui ont des difficultés pour s'insérer dans le tissu sociale et économique et professionnel doo mos a toog bay gis ay éducateurs wala ay formateurs yoo xamee ne dañuy nekk ay facilitateurs pour que nga ñu mun a utiliser la ville mun a utiliser les infrastructures yi nga xamee ne ñoo war a mun a permettre jeune bi mu daal di mun a jaay ay compétences am ñi nga xamee ne dañ leen bàyyi ci yoon bi moom la ñuy wax les déchets scolaires ñooñu formation professionnelle war na leen mun a daal di jël insérer leen ci biir dégg nga bu ñu marginaliser daara yi ñu bañ leen a marginaliser dugal fa li nga xamee ne moo leen di jox des outils techniques de gestion yoo xamee ne dina leen mën a permettre pour que suñu mënulee gérer ay entreprises dinañu mën a nekk des éléments yoo xamee ne dañ leen mun a utiliser dans le tissu économique comme des euh, comme la maîtrise ouvrier wala cadre wala cadre moyen ñu war a nekk les. Euh, courant de transmission bu war a jógee ci base bi pour yéeg ci kaw li nga xamee ne moo di euh, kii bi. pour est-ce que dina yow parce que nekk nii emploi am fi ñu ngi wax ay waxu dañuy relancer waat Dakar Bamako euh, terre bi am na jafe-jafe keroog fi nga xamante ne moom mooy euh, building lakk na ndax ay affaire problème technique donc fu mu nekk nii est-ce que yow jàpp nga ni dina yomb ak yenn affaire détails ndaw yooyu Dakar Bamako ñu ko bëgg a lancer waat terre bi pareegul ñu dañuy lancer Dakar Bamako ak yu ni mel loolu noo koy noo koy noo koy jàngate ni nga koy jàngatee rek moo di que ni lépp lu ma la wax fii Sénégal jàng jàng na ko séminaire nañ ko def nañ ko ci document il suffit que mu am une volonté de le faire mais xam nga bu njëkk ba ñoom sengoor ab du Diouf ak euh, Ablaye Wade ñoom am nañu benn état de grace buñ leen mayoon mm. waaye gis nga ñii fi nekk nii Euh, dañu amagul état de grace boobu nga xamee ni moom moo war pour que ñu mun a teg mbir mi dem nañu ba xool Dakar Bamako bi sur le plan économique fii euh, autoraay bi daan jaar yépp jëlee ko euh, Kaolack dem Guinguinéo dégg nga mu nga dajeeg express mu jógee Dakar fépp fu mu taxaw da ngay gis que ni day soqali dëkk yi nga xamee ne ñoom ñoo nekk foofu ba nga xamee ne euh, mbir mi dem nañu ba freiné ko bi nga gis zone boobu yëpp dafa dee completement ba Tambacounda léegi buñ ñu koy soqaliwaat fekk jël nañu ay milliards yu bare bare bare bare bare def ko ci terre bi ba pare te terre bi yëngoogul sax korneegul sax milliards yoo xamee ne dañ ko jël dugal ko ci suul ko mu daal di taxaw inhibé wu ne nii léeg ñu jékki-jékki dégg nga bu ñu demee ba nit ñi wax ñaari yoon ñetti yoon ci affaire u bi ñu daal di génne directeur u teer ba dénga nga daal di ne bon voilà mu ngook euh, indi affaire u ay euh, ñun ñoo ci bokk dégg nga man euh, benn benn waa maatam wala benn <laughs> waa podoor mu daal di ñëw taxaw ne mooy directeur ba dénga nga commencé wax a wax boo wër ñu foog ne jeex na ñu daal di bàyyiwaat. mooy li may wax rek euh, président de la république dama koy wax toujours rek ni euh, lii nii fa mu jëm la muy xeeñ neexul kon nag comme moom mu ngi leen di dànkaafu comme moom gis nañu ne li nga xamee ne am na bon volonté pour que mbir mi def ko waaye ñu ngi ko naan ñu def lii danañu def lii di ba moom ci boppam mu daan ne bu leen ma joxati sax ay euh, caricature ba dégg pour wax ma ne ma ça très bien wax ma ne ma lan la ma réglé ko parce que moom am na volonté ah parce que je sais que ni am na volonté pour que mbir mi mun na daal di jàll. Mm. waaye nag bu ñu demee ba nga xamee ne nag yegg nañ fi nga xamee ne ay taf yëngal moom la ñuy mun a sauver eh, li nga xamee ne moo di euh, gouvernement wala système. ah bu yàggee nag xëy na mun na am fu ndox di jaar bu bu fay nekk di dal di dal di dal bu ëllëgee da ngay gis que ni mun na am mu daal di exploser daal di exploser te ba exploser yàlla na ñu muccal te yàlla na ñu fexe rek ba nga xamee ne ñu bokk ci ñi nga xamee ne ñooy nettali tàngu mbas ma voilà donc mu nekkoon liñ ñu euh, cëloon ci wax moo jeexaan rek da ngay euh, def benn tënk rek ci une minute ñu wax ci ki nga xamante ni moom mooy euh, Abdou Badara Cissé je pense mm-hmm. donc mu génn àdduna ci li nga xam ne moom mooy coronavirus bi donc en une minute nga wax ci moom daal di tàggoowaale benn yoon ak ñi nga xamante ni ñu seetaan la parce que mm-hmm. li ñu cëloon ci wax dafa di jeex donc génn moom mooy le médiateur de la République ki nga xam ne ñëpp nangul nañu ne c'était médiateur koo xamante ni il était libre ci li nga xamante ni moom lay liggéey ak euh, président Macky Sall euh, génn àdduna bi ndax nekkul benn euh, perte bu mag loo ci dina am lu mu yàq wala boog lu benn rupture bu bu mu dindi ci li nga xamante ni moom mooy démocratie bu Sénégal. xam nga man bu fekkee ne dafa am li nga xame ne rek moo di mbirum dee man. Euh, damay nekk quelqu'un boo xamee ne ku amatul benn moyen face à la mort. Mm-hmm. ndaxte suñu borom moo def li gën li mu waroon a liggéey liggéey na ko li baax yépp jël nañ ko ko di ko ko waxal man damay ñaan yàlla lu baax yépp fekk ko fa mu nekk dégg mu daal di ko euh, xare àjjana lépp lu ñu ko waxal nag dafa baaxoon dafa nekkoon nii wala def na nii dégg wax naa la ko ca Hissène Habré ba nee naa ko dem na fekk ji gaañ léegi mook suñu borom la ñun li nga xamee ne moo fi nekk nii moo di la mu def ba liggéey ko ba pare ne ñaan yàlla ñun ñu am loolu te loolu mu doon xeex noonu ñi nga xamee ne ñoom ñoo taxaw nag pour mun ko ci dem ba constaté ko nañ ko jëfee buñ ko jëfee rek dangay gis que ni dégg nga euh, ku ñëw ay renouvellement la mm-hmm. ay renouvellement la am na nag loo xamee ne Euh, doon naa ko wax ci commencement mbas mi da la doon wax ne leen suñu borom dafa nekk di raxas àdduna bi lépp li nga xamee ni te ci biddéew yi lay jaar lépp loo xamee ne euh, ay biddéew yi fi ñu taxaw ak biddéew yi lañ doon wax rek dañ doon wax toujours que ni euh, dañu nekk ci processus de transformation processus de transformation bi lépp li war a transformé wu boo disee depuis mars 2020 lépp ngi transformé wu li mun a transformé wu mu ngi transformé wu processus ba ngi continuer li ko mënul day désintégré wu daal di fin ah. loolu mooy li nga xamee ne rek moom laa la mën a wax ci euh, décès euh, Babacar euh, décès ABC. ABC donc ñu ah. koy ñaanal lekk fa mu jëm gënal ko fu mu jugee te suufu Touba oyof si kawam donc comme ni nga waxee rek c'était le médiateur la République nekkoon ku ku jege président Macky Sall donc comme mu nekkoon li nga xamante ni andi nañ ko tey si seen émission Actu Rewmi nga tàggatoo benn yoon rek parce que. waaw mhm, di leen di leen jox dig daje. ci li nga xamee ne moo di euh, alxames ak jàmm mm-hmm. ci beneen numéro Actu mi mm-hmm. di wax rek ni euh, tey jile gis nañu ne encore une fois euh, l'espoir fait vivre mm-hmm. ndaxte médicament yi ñëw ak ni nga xame ne noonu la àddina bi di doxee ak yu bees yi nga xamee ne gis nañ ko ci ba ci reenu boobu nga xame ne reenu Angleterre di wax ne nañu delluwaat ci yàlla pour ndëppal Londres dégg nga te Cheikh Tidiane si waxoon ko fi dégg nga ñun euh, te euh, Serigne euh, Mountakha daal di jaar ci alxuraan ak xasaayid yi def ko fi ñu daal di gën a yokkaat looloo rek xëy na buntu baa ngi foofu. Hmm. xëy na buntu baa ngi foofu te suñu borom dinañu rusee loolu nga xamante moom mooy euh, tur yàlla yooyu nga xam ne ñu nekk di jaajëfal suñu ci ginnaaw caméra yi euh, saa su ne ñooy nekk ci liggéey bi ba liggéey euh, yemb di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo taamu di seetaan li nga xamante ni moom mooy Rewmi TV à travers votre émission actualité ci biir réew mi ak bitim réew donc mu ngi noonu kon seen émission ci réew mi euh, donc euh, fii la donc la ñuy tàggatoo ak yéen di leen jox di daje beneen yoon euh, fii ci Rewmi TV ngir wéy def seen ay abonnement jërë ngeen jëf.